jàppante ci làmb ji nga xam ne ñu ngi ko tëgg fii nga xam ne moo di stade Nelson Mandela bu Mbàkke euh, Malick ñu gis la euh, Madaka woote woote woon nañ nga wuy si tey ñu wootaat nga wuy si lan moo ko waral waaw jërëjëf euh, depuis seen première édition la liggéey ak man déjà ci wàllu publicité bi bi ma ñëwee également couvrir ko wane ko grand combat ñu am mbégte ci loolu ak li ma jëflante ak ñoom ren aussi ñu woowaat ma comme aw ma benn engagement ma ñëw jàppale mu àndal ñu ngi def liggéey bu am solo te lépp dafa bokk ci li nga xam ne dafay jàppale euh, jeunesse su Mbàkke ak mbëru Mbàkke ndax mbëru gox bi dañuy am jafe-jafe pour bëre ji Dakar wala pour am combat donc bu ñu amee structure bu mel ni Madakaw ànd ak Yékini bu Mbàkke ñu leen di tëgal ay combat loolu dañuy sawar ci ñëw euh, yokk yokk leen visibilité jàppale leen et puis ñu xam ne Mbàkke aussi dañuy dund làmb dëkku làmb la moo tax ñu nuy woo autorité ñu gën leen jàppale appel bi may lancé aussi mooy fi ñu nekk ni di stade bi donte am na woon projet mais nañ ko accéléré ndax Mbacke mérité na am stade bu ëpp doole bi jeunesse Mbacke mérité na loolu te luñ ci gën a gaaw gën ci taxaw mu gën a baax. noo gisee ndaw ñi ni ñuy euh, doxee jëm ci làmb. waaw loolu dafa am solo parce que lamb tey facteur de développement la buñ la waxee ni combat bi ñu signé Berki Dembo Ndiaye wala démb rek diggante euh, Eumeu Sène ak euh, Modou mu nekk la revanche tey buñ la nee fay nañu Modou Lo fay nañu Eumeu Sène loolu da lay ni tey lamb egg na ci niveau bu nga xam ne xale yi kenn ku ci nekk yaa ngi nekk champion te karkar mooy doon kàddu ci mbapat ngay doore ak ci combat yu mel nii ba keroog ngay egg leen gën a jàppale gën a jàppale mbëru Mbàkke ba Mbàkke am champion bu mag